asalaamaaleykum mbokku internet yu Sénégo Kawtef ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm fas yéene leen jukkee li nga xam ne ne moom mooy information people fait divers yi gën a fës ci biir semaine bi dañ koy commencé ak ki nga xam ne ne nag moom mooy Cheikh Sarr gannaaw fukki at bi mu defee fee ca des médias Cheikh Sarr nag wan na ginnaaw kër googu noonu ba jamono jii ñuy wax ak yéen xamuñu yan raison moo poussé Cheikh Sarr a mu quitté ah, fi nga xam ne ne moom mooy kër googu noonu buñ jógee foofu nag dañuy ñëw ci ki nga xam ne ne moom mooy ah, Fama Thioune Fama Thioune nag xam ngeen ne ëmpale wu leen benn yoon semaine bi site internet yu bëri bind nañ ko ni Fama Thioune dafa divorce ak Edo muy une fausse information divorce am na waaye du moom ak Edo Fama dafa divorce waa ak waa groupe ah, IGFM war a dali ji nag fee ITV di fa def émission bu euh, doy waar effort ensemble force organisation et responsabilité xam nga ni projet effort boobu noonu nag ñu programme woon initier ko par Moustapha Dieng bu Dabrins gars yi commencé ko woon au mois de mars bi ñu génn mu nekkoon première phase bi deuxième phase bi nag ci lañ toll xale jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy team projet effort bi yëpp ñu ngi fee ca France ci studio H24 bu Barack Adam pour nag war a eggali li nga xam ne ne moom mooy deuxième phase album bi wax a génn au mois de juillet incha allah Maty Trois Pommes amul dara lu mu desalu ki nga xam ne ne moom mooy euh, Cheikh Niass di doom ci Sidi Lamine Niass aussi di jiite instant bi ni li nga xam ne ne moom mooy groupe Walfadjri euh, Maty Trois Pommes xamal nañu ni salaire Walfadjri jarul dërëm waaye tey am na ay ñu bëri ñoo xam ne ñu liggéey foofu ci Walfadjri amuñu sax li nga xam ne ne moom mooy contrat waaye tamit dafa samp tëkku ki nga xam ne ni moom mooy Cheikh Niass di ko xamal ne ni dafa am benn euh, lu tudd CNP bu nekk ci biir Walfadjri CNP nag moom mooy Cheikh ñes production donc mu ñuy xamal ni am na ay pub yu bëri yoo xam ne ni mu ngi dugg foofu ci biir Walfadjri est-ce que ci turu Walfadjri la pub yooyu di duggee wala est-ce que ci turu Cheikh Niass production la publicité yooyu di duggee samplaaj boobu la def buñ jógee foofu nag xam ngeen ni nag ah divorce bi am na Bijou ngoone nag bi mooy la quatrième fois muy divorce ñu bëri nag ñu ngi doon laaj est-ce que divorce bi am na wala amul waaye waa kawteef nag xamal ñu ni divorce boobu am na ajaa Diallo moom maire ba futtu nekk ci Snapchat bi di saaga di xuloo li ko metti mooy am benn nit boo xam ne ni xamuñu góor la wala jigéen la moo nekk ci internet bi jël ay photo Adja Diallo waaye jël tamit ay photo doomu Adja Diallo créé ci compte di ko alimenté ni mu neexee muy usurpation d'identité donc looloo métti Adja Diallo ba mu génnee ay saaga yu métti euh, teg ko ci ki nga xam ne ne moom mooy waa jooju wala moom mooy ndaw soosu ah xam nga ni Myrma nag génne na li nga xam ne ne moom mooy woy bu bees tuddee ko confidence Myrma balaa mu doon génnee confidence wala sax balaa mu doon dem ci émission confidence boobu dafa amoon benn woy boo xam ne ne tëggoon na ko ba pare di ko waaj a clip pour génnee ko waaye xam ngeen ne nag émission boobu dafa defoon buzz def tolle looloo ko inspiré ba mu génnee woy bi nga xam ne ne moom mooy woyu confidence boobu waaye xam nga ni pig nag dañ ko xamee woon ci li nga xam ne ne. moom mooy rab waaye Mirma boo dégloo woy bi bu baax ah, am na pig yoo xam ne aussi sandi na ko ki nga xam ne ne moom mooy Baba Amdi ndax xam nga ne Baba Amdi moom moom moom structure bi ñuy woowee mille mélodies ci woy bi balaa muy jeex Mirma xamal nañu ni que ah, moom am nañu am mille mélodies waaye moom mu ngi dix mille mélodies bu ñuy jógee foofu nag dañuy jëm euh, fee ca Cameroun xam ngeen ni comédien boobu noonu bu ñuy woowee Cabrel Najib moom nag dafa def benn accident bu metti ci jeudi bi ñu génn nii ba gét ba euh, ñàkk ci li nga xam ne ne moom mooy bakkanam waaye li ci gën a grave mooy dafa am benn soxna boo xam ne ne muy ci internet bi bi DJ Arafat di doon avant mu doon gaañu moom génn na woon na prédire li nga xam ne ne moom mooy génn àdduna bu. DJ Arafat moom moo génnaatoon ci at bi ñu génn nii en 2022 prédire que dina am ku gaañu waaye tuddoon na ci turu Cabrel affaire yi noonu la demee waaye xamal nañu ne aussi Cabrel bi nga xam ne ni moom moo génn adduna dina amaat juróom fukki ndaw cinquante jeunes yoo xam ne ne dinañ topp ci ginnaawam te dinañ euh, dee dee bu metti mu ngi noonu dañuy ñëw nag ci ki nga xam ne moom mooy Burna Boy xam nga ni Burna Boy nag dafa réaliser un nouvel exploit Burna Boy c'est le premier artiste africain à se produire lors d'une finale de la Ligue des Champions bi nga xam ne moom moo amoon fee ci Istanbul mu bokk aussi ci yi nga xam ne ne moom mooy artistes yi ëpp ay raaya fii ci Afrique donc c'est la première fois loolu am ñu ngi ñaan aussi ñun suñu artistes yi ñu liggéey ba mën a atteindre yi nga xam ne ne tey Burna Boy foofu la toll merci beaucoup cher internet de Kawtef Sénégal lii lañ leen indiloon tey di leen jox dég daje rek ba semaine prochaine merci beaucoup